nekkoon invité démb ci dimanche ji ca émission boobu la ñu tuppee grand jury moom Mary Teuw Niane daal di fa yëkkati nag ay kàddu di sàkku ci njiit yi ñu waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo ŋànk diine ji ci réewum Sénégal ngir ñu daal di dàq màggalu ko Touba ak gàmm gi ndax li ko waral di mbas mi lëmbee mim réew di Covid 19. wéy ga mi wéy di lëmbee mim réew ak kaaya nag yokk ga nga xamante ni ma ngi ko yokk jamono ji ci réewum Sénégal waaye nag yooyu kàddu jugee ci Mary Teuw Niane daal dinay merloo ki nga xamante ne nii moo di Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma mu yore lépp lu jëm ci communication wu lu ko Touba rafetluwul benn yoon yooyu lee kàddu nga xamante ni kii di Mary Teuw Niane daal dina ko yëkkati démb di wax ne nag Serigne Mountakha Bachir di xalif général des Mourides séntuwut ndigal si kenn mat na mat goo xam ne buñ àggee si màggal gi li mu war a def dina ko def mu bépp décision boo xamante ne nii kii di sëriñ mu taxa Bachir dina ko yëkkati jëmee ko ci màggal googu le du ci séntu ndigalu kenn moom mooy xool rek li nga xamante nii moo war a nekk mu daal di koy def daal di na say toftal ne bi sëriñ Mountakha Bachir di yëkkati ay 200 millions di ko jëmee ci xeex bi ñuy xeex mbas mi lëmbe mbim réew di Covid 19 ak di ñaan ñi nga xamante ne nii ñoo di taalibe yi ñu daal di respecté li nga xamante ni moo di geste barrière yi jëm ci grande mosquée maanaam ci jumaa ji ñoom ñooñu lee fan la ñu nekkoon ki yëkkati nag yooyu lay kàddu moo di Abdou Lahat Mbacké Gaynde Fatma mu mel ne mer lool ci kàddu yi nga xamante nii ak kii di Mary Teuw Niane daal koy yëkkati ngir ñu dàq li nga xamante ni moo di màggalu ko Touba ak gàmmu ci ren jii.